may mun a vraiment euh, li ñuy retenir ci moom rek mooy jàmbaar gi jàmbaar gi xam nga dañ naan olof dafay wax dee ci toolu xare ak dee ci kaw lal noonu la gaañu ci toolu xare ame ak gaañu ci kaw lal dañ ma agressé fekk ma liggéey woon ba wàcc xaaju guddi di jigéen di jàmbaar di journaliste yombul di chef d'entreprise yombul di def liggéey bu metti mu yëngu ci wàllu politique ci dëkk bu yëngu yombul ñu lay menacer nga xam ko te daw yomb loolu mu boole yépp di ko def moom may mun a ba am ci nattu nattu bi ba nature la ndax dafa laal politique ndax laalul politique li ci leer mooy jigéen ciy jàmbaar te jigéen ji jigéen bu ñu war a protéger ndax femme leader bareetul trop Sénégal femme yi ay jàmbaar lañ waaye ni ñu daan gisee femme yu fës lool ci wàll yépp dafa xaw a wàññeeku ci ay jamono ba ci wàllu politique nii dañ daan gis femme yu yu yu fës yoo xamante ni vraiment danañ occuper le premiers rangs nekk ci kanam ñi ngi ciy gis tey ñu ci bari ay jigéen lañ yoo xamante ni mag lañu ñu ngi waaj a magal relève bi bariwul. Mm-hmm. donc ci domaine bu nekk jigéen bu ciy percé te lii mu def ci jigéen journaliste dem ba créer télé télé bi di di am émission yu mag amul politicien wala ku dul politicien kum dul recevoir nga jàpp ni émission bi émission bu mag la boo xam ni war nga faa mën a dem toog. Mm-hmm. loolu mu réussir dañ ko war a tatagal ba jigéen du ragal ëllëg am na koo xam ni amul fitam mën naa toog naan su ma ko bëggee def xoxatal yi may mun a di dund laay dund moom xanaa xamoo su arrière mën naa arrière loo ñu bari moo tax njàmbaaram laaj ñu kañ ko pour que mu continuer pour doon exemple ci yeneeni jigéen yu toog tey di seetaan mën a def ko moom mm-hmm. yàlla dogal de par sa générosité man semaine bii rek ma seetaan ko li ñu wane ni ñun ñëpp ñoo bokk lu ñuy def man dañ ma wan vidéo boo xam ne moom y a même pas quelques jours mi ngi ñuy tudd mu ni mes amis de Jakaarlo ont trouvé la bon formule comment la ñuy jëlee ñu am bac ni leen yéen dañ leen di booleek ñi amul bac pour ñu waxtaane orientation bi mu ni je suivi sur mes mm-hmm. amis de Jakaarlo loolu rek générosité la pour man parce qu'elle nous montre indirectement que mi ngi ñu doon seetaan et elle a apprécié. Mm. loolu laa mujjee seetaan ci vidéo bu ñu ma envoyé ci moom mu ñuy tudd. Mm. ñu ni gaañ nañu ko. loolu nag dafay creuser lu sori parce que li am politique la du politique menaces yi moom am na menaces yooyu am lan moo tax mu am wax ngeen fi lu bari mais gis nga ba ci suñu parti politique yi. suñu jeunes yi engagé wu école du parti war nañ ko defaraat. c'est ça c'est ça. ñu former xale yi. Ablaye Wade sama maam la. Kébémer laa juddoo. Kébémer gi ma juddoo ci kër gi. dañuy def pied mille bi maanaam pied de mil bi noonu mboq bi takk ko ci kaw moo tax bi nit ñi di wax ay bracelet ma ne yéen xamoo leen PDS eggoon na boo fa bokkee drapeau bi ngay takk ci kër gi looloo gënoon a garaaw man ci loolu laa juddu en tant que sëtu Dame Gueye wallaahi ci régime mu Abdoulaye Wade tëdd naa ci six fois kaso bi Abdoulaye du wàccee maa moom dañ toog di waxtaan mu jàngal ma ni désaccord du désamour désaccord yaat nit ngeen bañ a déggoo ci dara ak bañ a am cofeel ci moom du benn parce que barke alxuraan dama ko bëgg Abdoulaye Wade pour man ci ñi fondé démocratie ab adduna sax laay wax ci la bokk surtout Afrique mais désaccord bi ñu am jurul désamour parce que après dama mujj di ko fréquenter di jàng ñu war a jàngal ni Maïmouna nduur mu toog di wax xalaatam Malal a mu toog di wax xalaatam Bouba Ndour mu war toog di wax xalaatam mais loolu mooy une belle divergence mooy une belle différence mooy ku nekk war a wax sa xalaat ci ni ko xalaatee ñu comprendral la ko ki d'accordul indil la débat ay idéem la violence c'est l'arme des faibles la violence ñi ñi ñi ñi ñi amul benn argument ñooy utiliser maanaam argument wu force mm-hmm. waaye ñun la yàlla féetewoo lu jafe mooy li ngeen wax sànq mooy exposé nekk sous le feu des projecteurs yombul jagle la war a wax nekk foo xamante ni da ngay wax ñi lay déglu am ñu la ci ëpp xam-xam fuuf am ñu amul xam-xam du tout am ñu lay comprendre ci une minute am ñuy def deux jours pour comprendre la mais attends loolu dafa metti mm-hmm. mais yow ñun ñoo waraat njëkk a defaat introspection mooy ñu xool xam ni ki nga xamante ni mi ngi ñuy xub <coughs> lan la bëgg lan mooy objectif wu kii xuppaate ñaar mooy objectif man de Badara ñaar yooyu laa waat ni duma la ci may benn bi ci jiitu mooy ki lay xupp bëgg na nga tiit ba daw ba dootoo assumé li nga xalaat mooy say idée. dootoo ko ñemee wax da ngay daw dal na fi ñu bari nag ay ragal tàppet yu bari yoo xam ni waxatuñ bindatuñ wala changé nañ position parce que danoo ragal. daw boobu man kenn mënu koo am ci man. waaye nag dafa ma beneen bu gën a jafe man loolu laa jàpp mooy aussi gis nga buñ la xuppee aussi dawoo ci biir xupp bi ak ñu lay xas bi ak di saaga boo deful nànk rek dootoo dal. yow it da ngay mujj mer ba ëppal. Mm-hmm. dootoo am équilibre. Mm-hmm. dal na ñu bari. mooy ñu lay saaga di la xupp ba mujj gi ci di leen wan ni du ma arrière nga mujj ëppal ba amatoo équilibre nga génn ci sa ni nga mel yow. Mm-hmm. te loolu c'est très dangereux tamit parce que kilifa ak kuy wax da ngaa war a dal. donc waroo toll ci ñu lay charger ba ngay defe nu dul yow. nit li mu am lay joxe dañu ni explosion boo gis implosion la tàmbali malal venez bu ma la sànni ci sama biir la jóge gis nga ki lay jéem a sànni safara moom consumé na ci biir lakk na ba jeex safara googu ci biir xolam la nekk mu bëgg ko génnee di la ko sànni kon moom mi ngi tàkk ci biir quand tu choisi yow d'être malheureux moi j'ai choisi d'être heureux man munoo wax ba yóbbu ma ci sa humeur damay fexe ba yow munoo fexe ba affecté man sama position wu dal si tu choisis yow d'être malheureux et d'être en colère avec toi-même avec tout le monde de ne pas être en phase avec toi d'être vraiment très remonté mere ñëpp mere sa papa mere sa yaay mere tout le monde tu orientes les projecteurs sur tout le monde sauf sur toi man dinaa fexe ba <clears throat> dooma merloo grand bi Youssou Ndour mës na wax baat bu am solo mu ree mu ni ndeysaan da ngeen di comprendre des fois nit egg fenn fi ci di saaga merewu la boppam la mere parce que Maimouna Ndour Faye kii na kan moo ñaanul yàlla am siste bu jàmbaare nii bu góorgóorloo nii buuxante xante ba bokk mm-hmm. kan moo ñaanul yàlla jigéen yu mel nii yu battante yu jàmbaar yoo xam ni ci système bi mais li muy jafe-jafe ci jigéen buuxante nañ ba bokk mais ñun suñu rôle mooy loolu mooy dal mooy ak lu persécution bi bari ak lu daw xupp bi bari waruñu génnee ci suñu nature mooy dal gi waaye tamit warul tax ñu daw ci war a wax dëgg bu ñu waree wax dëgg parce que la dame a été une fois dañ ko menacé. mu koy wane nii en direct ni diw mii mi ngi nii moom nëbbatuwul daf may menacer chaque jour que jëfe te pourtant arrièreul loolu tamit responsabilité étatique da ciy jouer la sécurité ñi ko yor mënoo am une célébrité comme ça mu ñëw wax li nga xamante ni tey wax na ko une fois ni ñi ngi koy menacé ñu egg ci kawam gaañ ko mais tey bu eggoon fenn fi catastrophe lay doon te kenn xamul woon bu eggee fenn fi lan lay jur Sénégal nag le mal est très très profond wax na fi léegi cellule familiale nit ñi bu ñu leen di tëggaat dana metti de parce que li ñu jàngal ñun barki alxuraan ñun dañu def ci ñun benn genre croyant li muy njëkk am ci àdduna mooy nangu li gëna jafe ci jamono ji mooy nangu mooy Bouba Ndour mi yàlla may na ko tel et tel te mayuma ko man Badara ma démarrer par nangu loolu dañu ko doon jàngal suñu kër yi mu doon li ñuy njëkk jàng ci àdduna mooy ñu nangu doylu bëri na luy am tey ci Sénégal bëri na li muy am ñàkk a nangu ak ñàkk doylu mooy dem ba ci loolu problème de sécurité nag insécurité bu amee ci dëkk jikko yi lañuy ñuy njëkk a xool waaye aussi la répression yàlla xam na ni ay Dubaï yi du question nit ñaa baax rek yaru rek kenn du sàcc de mais daf laa leer ni boo sàccee mën na am sa loxo bii walla fukki at yi doo génn nit ñi bi ñu conscient wee ci ni fii moom boo fi sàccee moom walla nga agressé yow sa àdduna mën naa yàqu mais est-ce que xam nga ni mën ngaa jël sa xaalis di ko compter presque ci mbedd bi ay million te doo ko ñàkk mm-hmm. donc gis nga liberté tamit lu graaw la liberté ak libertinage dañoo jege. benn mur la waaye liberté du libertinage fi may daaneele rek mooy di ñaanal Maymuna mu jóg ak jàmm delluwaat ci liggéeyam parce que moom pionnière la ci li mu nekk di wax képp ku am mission bi mu am mooy comme ni ko buuba waxee mu ngi nii suma xarit la mës nañ toog fii mu wan message boo xam ni ni mu ko méttee la ma méttee parce que dañuy dem ba sa diggu vie di la ci saaga. mais les gens sont forts bu ñuy toog fii ak di kaf ak di partager ak sénégalais yi. mais mais mais mais duñ ko sax wane. te pourtant am na ñu ñuy bégal seen kër yi. am na ñoo xam bu démarré wul sax dañ la naan mais pourquoi démarré woo leen. non ñooñu nag la muñee. ñeneen ñi nga xamante ni am nañ yeneen jikko yi parce que àdduna moom force bien ak mal dañuy xeex ba ba ba ilaa yow mal abat mm. mais yàlla nañu yàlla dimbali cellule familiale yi ñu dellu ci tëggaat doomu aadama yi tëggaat nit ñi bu ñu tëggee nit ñi jikko yi defaru bu jikko yi defaroo lii ñu nekk nii yépp dinañ ko mën a dépasser jërëjëf maa ngi bëggoon passer beneen point bi mais yéen ñaar voilà yéen a ngi bëgg rebondir mais comme comme dama bëggoon passer à l'autre point.